au-delà de Karim xam nga tamit présidentielle bi yaa ngi koy wax sànq am na ay porox ndollu ay mbir yu am ci loi bi ci façon bi ñuy demee yoo xam ne bu présidentielle bi jeexee dinañ ko xoolaat mais au-delà de Karim Wade est-ce que waruñu taxaw sur cette question de de de binationalité. mais man loolu loolu loolu man dama lay wax te naan la wax gis nga bu ñuy defar la constitution sama yaram a ngi daw parce que man yàlla benn doom la ma may benn rek. ñaar la ñu woon ku góor ak ku jigéen mu jël ku góor ki bàyyi ma ak ku jigéen ki yàlla na ko yàlla euh, sàmm mu dund bu dund lu yàgg bu ànd ak wér ak ak njëriñ te kooku yaayam dëkkul Sénégal mu soqi ko France mu am nationalité française d'origine ba ñuy ba ñuy defar texte bi man ak Ibader dañ ci jàppante dañ ci werante ma ni ko man sama benn doom bi ma amee mu juddoo fii Sénégal juddoo ci farata ci farata lu juddu ma jàpp ne am na sañ-sañ nekk Sénégal nekk sénégalais ne bëgg na jiite réew mi ba pare am culture boo xam ne ne bii mu ngi ko jëlee ca ndeyam luy ndeyu ngeen ne da koy bàyyi kenn moom mooma mooma mooma ma moo ci d'accord ak muy Marie Pierre Sarr professeur de droit à l'université ñun ñaar ñoo ko xeex ma ni man d'accord ma ci man mooy premier argument deuxième argument bi ma joxee dama ne Sénégal soo ko seetloo on a trois ba quatre millions ba cinq millions de Sénégalais yu nekk étranger yàgg fa am fa njaboot Abdoulaye Yoro Dia Abdoulaye Yoro Dia moo doon vice-président République démocratique du Congo sama mbokk tukulóor la moo ma gën a dégg tukulóor te pourtant vice-président Congo la congolais yi nangu mu tudd Abdoulaye Yoro Dia nekk foofu le may wax ne tey Tidiane Thiam Tidiane Thiam mën na ëllëg diriger Côte d'Ivoire du sénégalais du sénégalais waaye ay baayam fi la ñu jógee loolu dañ koy respecté Barack Obama baayam Kenya mi ngi tudd Barack Hussein Obama Nicolas Sarkozy baayam hongrois la damay wax toujours sama xarit daam dama koy cité Manuel oui Manuel Valls. bu jógee bu nekk premier ministre France. oui démissionné foofu. dem nekk fa damay wax dama am sama xarit journaliste bu ñuy wax daam dama koy keroog dama ko wax ci ay doomam. États-Unis la ñu juddoo New York nekk américain yàlla may leen donte ne foofu lu ñu juddoo màgg fa bu ñu ñëwee Sénégal parce que ay waxambaane lañu yàlla may leen ñaar ñuy làkk olof nekk ay murit sàddiix tey suñu ñu bëggoon tey bu ñibbi si Sénégal pour nekk président ñu ne leen il faut ngeen bàyyi seen nationalité américaine mën d'accord ma ci waaye ba ñu demee ci Ablaye Wade Ablaye Wade ba ñu demee ci moom moo arbitré. et c'est quoi son argumentaire. mooy li fi am no moom moo d'accordoon na ci li li professeur Iba Der Thiam proposé woon. non Ablaye Wade à dafa jàppoon ne moom bu nangoo bu dindee article bu modifier article L28 bi mën nañ xalaat ne. lui il est concerné. waaw loolu loolu spéculation la loolu spéculation la mais bañ fa demee il a arbitré. mais man à titre personnel man Amadou Sall man su doon sama sago la boobu dañ koy dindi waaye nag dura lex la loi est dure mais c'est la loi. mais xam nga sànq da ne euh, conseil constitutionnel dafa nekk une une une une une mais dafa am euh, dafay jël parfois en compte des contours politiques bu ñu jëlee un Karim Wade. Euh, mu nàmp euh, bokk euh, ween soow boole ko ak France mais Karim Wade ba muy nekk Sénégal nekk au gouvernement ci cursus gisuñu fenn fu Karim Wade xëccoo sa nationalité française mu ñëw mu nekk ci ay tolof tolof on n'a jamais entendu Karim Wade malgré que utiliser nañu France utiliser yóbbu ay commission rogatoire mosuñ ko dégg mu teg sur la table alors qu'il aurait pu euh, qui l'ont fait teg sur la table son sa nationalité française pour se dérober devant la la la justice euh, devant la justice sénégalaise alors est-ce que du du douleur d'obliger un individu à renoncer à une de ses à une de ses ouais. parties pourquoi le conseil constitutionnel n'a pas pris en compte euh, le fait que Karim Wade ba mu nekkee ci langue ba tey il se présente comme un Sénégalais il n'a jamais euh, réclamé ou assumé euh, une appartenance à la patrie française Maïmouna xam nga euh, li ma koy wax léegi loi bi leer na c'est la constitution du Sénégal parce que aussi ak conseil lan la mën a di yaatal am na loo xam ne ne bi nag interprétation stricte rek nga mën a def mu amoo ci pexe article vingt-huit tout candidat à l'élection présidentielle doit de nationalité sénégalaise et doit faire une déclaration sur l'honneur, déclaration sur l'honneur terme de laquelle il est de nationalité sénégalaise loolu la loi bi wax leer na xam nga le conseil mën na si loi bi mën nañ ko interpréter li waaye su leeree noonu ba ni ba ni ba ne ne lu ne lu ne fang kenn du ko jeex sooy jeex da ngay jeex loo xam mën nga ko jeex loolu la metti na man wax naa ko encore une fois ñun suñu candidat Amadou Ba il n'a pas de procédure contre Karim fas su ko yéen woon a def. mais Karim Wade accuse l'État du Sénégal. waaw mais loolu nag loolu loolu loolu ñoo orchestré cette forfaiture là pour faire passer leur candidat waaw xam nga. Euh, euh, waaw loolu moom du ma ci tontu parce que du ma polémique man tey su ma sañoon su ne parlerai que de mon candidat waxee wax yeneen candidat su ma sañoon d'accord. dinaa mën nañu wax ñeneen ñi parce que aussi kuy euh, euh, kuy dem élection di nga wax ñenn ñi mais moom mi wax moom la ñu war a mën a laaj fan la ko teg man dama jàpp ne dama bokk ci avocat wu euh, Amadou Ba ay groupe lañu woon man maa ko jiite ñu wax d'accord bu ñu waxee ba pare dañ ne suñu Amadou Amadou Ba mi nga xam ne ñun moo ñu moo ñu moo ñu jox kaddu dafa ne li defuma ko kon defuñu ko dégg nga loolu laa ci mën a tontu li ci des li nag euh, moom mi nga xam ne bi moom moo koy wax moom la ñuy ñëw su ëllëgee nga laaj ko lan moo tax mu wax loolu waaye bon man duma avocat euh, fii c'est pas l'état man Amadou Ba laa nekk avocat Amadou Ba laa mën a wax.